salaamaaleykum chers internautes de Sénégo Kawtef ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi toujours euh, fii Kaolack tey nag euh, ñu daje fee suñu maman ah suñu yaay bi nga xam ne moo gën a simple ci yaay yu ñu xam yëpp macha allah <laughs> yaay booy ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay yaay ñu ngi lay dalal ci Sénégo. maa ngi nangu dal bi ak sama fukki loxo juróom-ñett di leen encourager ndax lii ngeen di def ñun bu amul duñu fàttaliku démb. Euh, ñu fekk la fii ci bésu gàmmu gi ñu bëggoon waa kër imam Assane kër Fat balaa ñuy ñëw la si Fat Assane dañu bëggoon xam rek nan ngay waajalee tey guddi gi guddi yonente bi nan nga koy waajalee. Ah, asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki jullit yi maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu Kaolack di nuyu waa Medina di nuyu Alaaji Seex Siise kër ci wàllu Maali Fanta Ndiaye Assane nga kën Samb Géey Jabu jërëb sa jama ak maa dem baab sa jama ñu yendu tey këram ñun ñëpp ci xew mi tabarkalla macha allah li ñu koy waajale mooy euh, Medina Baye moom boo namee sax armal boo armalee ñëw Medina Baye mbaa nga dem Touba mbaa nga dem Njaaréem mbaa nga dem Tiwaawan ñu koy waajale mooy kontaan ni mu nu fa fekk parce que yéene jox akam ba mu jeex. bëggoon xam sa diggante ak ki nga xam ne moom mooy soxna Fat Samb ndax ci këram lañ la fekk tey. sama diggante moom dafa yàgg yàgg gi mu yàgg mooy danoo bokk jukko waaye borom këram mooy sama xarit di sama sëriñ mooy mooy euh, Alaaji Cheikh Cissé dañ koo jox parrainage Màkka yàgg na ma ànd ak Kiné ñuy dem Màkka dajeeg moom moom mu nekk euh, directeur pèlerinage bi mu ñëwee ñun nuyu ko waxtaan ak moom keroog keroog la boole ci jabootam keroog la ñu ci boole ñu ngi muy ku yaatu ku oyof ku bëgg jàmm li ñu ko dénkoon ku comme man ànd ak moom makka lu ma ñaari yoon ñett macha allah euh, loolu ci sama relation ak moom la euh, Fatou Samb di sama xarit bi daan du mbaa na jàngi kenn du moom di jigéen ju baax ju yaatu ju oyof am diine bëgg njabootam te xam nga ñun géeba duñu rasis koo ci bëgg rek mu bëgg la te daf noo bëgg loolu moo tax tey jii mu am xew ci këram xew jàmm salaan salaam ñun ñëpp ñu xëy ñëw jóge Ndakaaru yéen doog moom ba ngoon te réccuwuñ si dara moo tax ngeen fekk ma fii tey mama à part gàmmu gi bëggoon nañ xam ndax nag da ngeen yàgg ci li nga xam ne ne moom mooy woy ñu gis seen temps ñu bëri ñoo xam ne ne yéen bokkaloon groupe tey euh, ci temps boobu noonu ñu bëri dañ doon xeesalax yooyu mais yow da nga mës a garde da nga mës a préféré garde li nga xam ne ne moom mooy sa teint sa teint noir bi la yàlla may waaye tamit ñu bëri dañuy wax ci woykat yëpp yow yaa ci gën a simple ndax duñu ne amoo ko waaye duñu gis ngay takk am nga ko mais doo ko doo ko takk du ñu gis ngay takk ay takkaay ay orxe lu tax lu tax loolu noonu. ndeysaan loolu du dara ku sopp or la ku ko bëgg la dañ ma koy may macha allah ku ko mën a mm, jënd sama waa la samay goro samay doom waaye euh, euh, du ma ko ñemewu ma koo takk bu ñuy xale sunu yaay daf na doon eh, dafa amoon wurus. waa dañ doon takkal jaaluwaal yi jaaluwaal yéen du ngeen ko xam mooy benn jaaluwaal da ngay def fii pitaaw mooy ne fii benn peru isafal nekk fii loolu mooy jaaluwaal yi moom lañ daan bootoo ba fer ci lañ jóge ak ak benn lamu xaalis rek bu njaxas ci moom lañ tàmm ba takkatuñu dara mais du tee nag bëgg nañ ko ndax jigéen day takk takkaay mais du takkaay rek mooy nit du takaay rek mooy jigéen du takkaay rek mooy sañse du takkaay rek mooy wuy ji du takkaay rek mooy àddina bi am na leneen du takkaay du dëgg waaw loolu moo tax démystifié wu ma ko waaye comme damay sonn di ko jënd di ko wuti ta aw ma aw ma or <laughs> ma ma def nii rek takk benn jaaro bii rek waaw tàmm naa ko sax nag. teint bi nag e-, est-ce que c'est sa jeunesse mosoo ko jéem a mosoo jéem a di la wala nii nga mës a mel mosoo ko jéem a changé. dama juddoo ba tey mosuma foye xeesal mosuma foye maquillage duma dem sax salon bañ naa ko ba sama bopp dama koy duma afro sama bopp dama koy lu xale wax dërëj waaw mi ngi nii xool damay dërëj waaw damay bàyyi faal damay dërëj sama bopp bu bu demee ba gudd ba gudd ñu dagal ma ko takkaatal ma taat bi ma continué waat noonu du dara mais moo gën a simple moo gën a gaaw tam te mag laa xam war na maa tàyyi nag di dem ay salon di dem du dëgg bi ma teeloo sax parce que yaru yaruñu du ma na yaruñu nu ci mais euh, kii ci soowuñu ci waa waaw sama goro yi sama sët yi sama doom yi tam noonu lan def li nga xam ne mënuma koo bañ takk daal mooy kii dinaa ko takk moom waaw kii nag sama doom bu jigéen yuma sama taaw moo ma ko jox ba ki dem sama anniversaire ak beneen jaar rakkam bu jigéen caatam sama caat bi jox ma bi moo tax tey ma takk ko ne du rek mooy àddina ak jigéen yi àddina bi jigéen ñëpp am nañu or ñëpp am nañu ñëpp am mais du àddina bi rek du du boo ko takkulee doo génn. <laughs> man moom euh, des fois mën naa bañ takk bu ñu waxee ma ne maman Soda Faar waaw na na ko jigéen ñi jàppee noonu rek ñi ko amul aussi ñu leen koy xasee nañ ko jàppee noonu bu ñu waxee rek ñu ne maman Soda Faar. ñooñu ñëpp am nañu or moom ku ko bëgg di nga ko am mais da dafa am man pour man dafa am lu ko dara du ko dara gënu ko ndax denc la boo soxlaa jaay di nga am sa xaay jënd sa or denc sa banque sa doom a ngi jàng on sait jamais bis bu demee def examen nga jàppale ko bu demee ci école yu mag yi nga jaay ci jàppale ko bu fekkee ni am na examen bay voyager nga jàppale ko ci jox ko jël xaalis dagg billet dolli ko mu dem jàng soutenir ko mais doyoo ko takk parce que. Euh, man na réer sax bu réeree sax yow yow takkoo ceen man takkuma ceen tey ci yow la gën a jekk ndax xale nga man mag laa su ma takkee ceen sax euh, au contraire yéen a ngi koy séentoo ma takkee ceen sax ak bañ koo takk amu amul différence waaw jaaro yi euh, am na fi yu jar junne ñaar téeméer man bi ma takk xamul lu muy jar cinq cent mooy yu jar cinq cent francs moom laa takk nii moom laa takk jaaro bi sama doom moo ma ko may barki dem bi ma tukkee ba ñëw yu ma mbaay moo may moom ma takk waaye du àddina bi du takkaay rek man nga am or nag jigéen nag day jënd or te ñun dañuy jënd or dañuy may or mais man nga am ko or denc ko sa doom a ngi jàng ëllëg mu soxla dara war a dem jàngi sa jëkkër soxla dara sa kër dara manqué fa nga dem jaay sa or def ko ci mais teg la ko nii bañ naa ko ba man kii sax moom ma gënal or kii waaw kii kii mënuma ko ñàkk waaw doo bokk ci man waaw mais nag bëgg naa or torop géwél day bëgg or mais quand am na foo xam ne du or rek moo fay dem. Euh, Sénégalais yi tàmmee nañ la nii ba peut-être sax tey boo ko takkaatoon ñëpp dañ la naan tekkil parce que nii lañ nii